non tur bi ak jëmm ji benn dama ne la tur boobu maîtriser naa ko te jëmm jee moo gënoon a métti tax Touba Dakar. ba ma koy jël entraîné chaque jour 6 combats 6 maa ko daan maa ko njëkk a daan. kon tur bi jaaxal ma bés bi jaaxal ma mënuñu. moom amoon leen loo ci laam laam. yàlla moo ma tibb aw ma leen lu ma ciy xalaat si moom dama gëm ne man damay dem sama du moo may téye xale laa dama war a def. dama déggoon nga am benn wax booy wax ne lépp am nga ko. doole moo la manqué wu te fi mu toll ni ma la gisee nii moom macha mais xam la lan ma jaaxal lan moo tax wax yooyu mbër mu may bëreel rek da koy faral di ko dee ci noppam. ndeysaan. mbër mu may bëreel da nga koy faral di ko dee wax jooju lan moo tax lool. mais ci yow la jógee. waaw mais da nga koy junj yeneen mbëri mais ñoom duñ ci bàyyi xel. dégg kon jot nañu bàyyi ci xel. de. maa ngi lay dégg déggoo ma de déggoo ma nag voilà. waxaat ko kon dama ne la mbër mu may bëreel man yow nga dem seeti ko di nga nekk Ronaldinho leneen lañ doon xaar si moom muy doole te wuti na ko. mais mbëri yow boo leen koy def ñoom duñ ci bàyyi xel. waaw après la ñu comprendre. waaw après la ñu comprendre. lan ngay wax Boy Dakar. waaw Boy Dakar adversaire la nag kon adversaire yi te ku ñu respecté la ku ñu jox cër la parce que dafa wane ay information yu doy yoo xam ne làmb suñu génération kenn mënu ko bañ kum di bañu mënoo ko bañ macha allah mbër la. def na ay qualité wane na ko làmb moo ñu boole. tëkkuwuma ko moom tëkkuwuma. làmb moo ñu ñu war a bëree te incha allah ci kàttanu yàlla bu ba tamit dama koy daan. kon jub ñaar ñëpp kenn du si xeexkat. yéen ñaar ñëpp ay bëree kan ngeen. est ce que loolu amateurs yi yaakaar bu ñëwee sur stade nañ ko si gis. waaw Diour man li may wax rek mooy na mbër bi taxaw dëggal boppam ci loolu. waaw waaw ñu wéccee mbër bi taxaw dëggal sa bopp ma dugal la top incha allah ci kattanu yàlla xam nga lay xalaat ñu ñëw forot ah, waaw te lamb léegi daa am te te gars yi ñu ci xel forot daa am léegi te gars yi bàyyi ñu ci xel mooy dañuy jël ngembay indi ko si dënn bi loolu forot la melul noonu moom ngembam dafa yem la bëggee wér a wér a am na kii sam ku si ñëw bëree man ngemb normal ñu bëree wéccee bëree xam na si kattanu yàlla. damay yàgg wax benn wax mbëru Tëngéej ji. bi ma deux combats de victoire ren. joxuñu leen seen carrière sax na ñaari soog a daal di xale yoo xam ne dañoo ko ko yàlla may ndam kanam rafet lool barke maam Cheikh Raval ndax xale bu ma ko liggéey la. waaw combat du combat bii de beneen la. du combat bii waaw du ko ñaan yàlla ko ndam ci xam na xale la mi ngi ci yoon daal. mais nag daay lamb yaa koy yëngal. dañoo tëwoon lamb. lamb yaa koy yëngal. yëngalu ma. naas kay dama bëgg na kon lamb moo ñu boole te ci kàttanu yàlla làmb ji ni damay dem man damay dem. kon ray la. damay dem damaa dem. war naa ci woo ñaari wax damay dem ah damaa dem. ah man dama war a dem. incha allah ci kàttanu yàlla. Siteu Siteu làmb ji jaral booy bi booy bi laa la wax parce que boo day voyage incha allah rabi du préparé fii combat bi. yàlla baax na barke alxuraan kan damuy dem dinaa leen oo yéen ñëpp ñu bu soobee yàlla làmb ji ñoo jaral. il est temps quoi na ba pare toos na naa la. sant naa la gërëm naa la. te la ma waral dama ñëwoon jàkkaarloog sama adversaire. waaw di ñaan yàlla suñu jàppee bés. yàlla sottil ko yàlla may ma ndam. lan moo waral Ronaldinho. Ronaldinho ñax adversaire. adversaire yu bëri ñemewuñ ma quoi. loolu moo tax ma jël ko. moom nag maa ngi koy di ko gërëm. di ko ñaanal yàlla wér gu bis ma ñëw ma daan ko jël bu gaaw. nee na nag da nga noppi mais xamuloo xamuloo ko yow. déggoo ma de man ci biir géew bi lañ may xamee ku ma xamul ku ma ku ma xamul depuis léegi dootoo ma xamat te bis ba suñu jàppee bis ci biir géew bi may xamee. dafa am benn wax bu mu waxoon ne Ronaldinho am na lépp mais doole la manqué mais léegi am na doole mais nee na saa bu ma ko waxee adversaire am du ci bàyyi xel mais saa bu bëree ak ñoom ba nopp ci doo ko xam lan li wax ji lan lay tekki. Balla wax Modou Lo topp na ñu bëre man kii dafa maa topp ay at pour ñu bëre yàlla dogal na suñu combat su bis ba nañ ko leeral si diggante bi. moom moo bëgg a bëre ak yow. moom moo bëgg a bëre ak man. combat leer na laaj na ma média yëpp combat bi leer na léegi yàlla ma yàlla may ndam si kawam. mais est-ce que amul faay yu mu bëgg a bëre ak yow. déggoo ma de man su biir kii yow kenn du gis sama faay te ñaanu ma yàlla am faay wallaahi dama koy daan si kattanu yàlla ak yonent bi. tey tey waat. maa ko dama koy daan waaw. arbitre ne pique ma dal ci kawam jàpp ko daan ko. nee na ñetti fan moo fi dese dafay voyage gën a yokki doole. déggoo ma na dem kirikoro man maa ngi fii nii NCB gars yi di ma toppatoo di ma jox may lekk ba suur waaw naa ma dara nag naturel rek toujours naturel wow koŋ wur na yàlla. loo koy wax. di ko ñaanal rek yàlla may ma ndam si kawam waaw amul leneen di gërëm sama gars yëpp ma fi àll a cadar bi billaahi wallaahi waaw maa ngi woo waa Casamance. waa Kaolack waa Kër Madiabel Lamaram Panna Sadir Ndiawar Alkaat Sanju Ba Faye Sanju Amad Pa Fall Kor Omar euh, di woo waa Kor Omar Bambara Kor Omar Pël Koylal Moussa Bool ñaar tali yëpp bàyyiwuma kenn booy ñaar tali yëpp waaw mafia sans loi fàttewuma leen benn yoon mafia sobale bu ñorul bi bàyyiwuma leen petit onze waaw sama yaay Ndeye Sall Diop Dieng loolu moo tax ma tardé si sama yaay Ndeye Sall Diop Dieng laa nekkoon ma xaw a maa ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax mu jàpp si bu baax waaw monsieur le maire Jean Baptiste sama papa Djibril Wade Ndiogo ambassade France waaw maa ngi woo ñëpp daal. mais tey ngaa mbokk yi arbitre bi sifle na combat baa ngi noonu ci digg géew bi Caatu Lamine Gueye moo ñëwoon ginnaaw Reug bu bees sifflé na moom la ñu jàkkaar lool Reug Reug bu Rebeuss ak ngi lay waatoo moo ngem moo ngemu lu ñuul li ah tooñ na ko léegi daw na eh, jàppante ah, Caatu Lamine Gueye lu muy def nii Caatu Lamine Gueye bal Lamine Gueye la rëg rëg sànni na léegi. caatu Lamine Gueye rëg rëg bu bees. xeexu mbedd la ñuy xeex. ñi ngi xeex ñi ngi xeex daw nañu jàppante. caatu Lamine Gueye rëg rëg bu bees. ñi ngi téyante. caatu Lamine Gueye moo ngem moo ngemul xonk li. rëg rëg bu bees moo ngem moo ngemul lu ñuul te ci mosu xonk bi caatu Lamine Gueye bëgg na jàpp léegi mu bañ. téyante. caatu Lamine Gueye. seddoo nañu jàppante bi ku ne téye ñaari géeñoo. fa mu yow sax daa sori génne sa ko ci sa épaule morom. Caatu ay da Njaay ngi way moo nga jaa Caatu Lamine Gueye rëg bu bees. ngi téyante. parce que rëg bu yàgg daa am. wala boobu bu ba mu dëgër waaye dara wañ na ko mu rëbb delloo si ko daan na ko rëg rëg bu bees daan na caatu Lamine Gueye jël bi rëy na da koy biij plaqué ko mu jaaxaan rëg bu bees daan na ko